compter sur le soutien constant et dina taxaw euh, bu baax a baax ngir yokk niveau bi ba mu gën a kawe. jokkalante bi nga xamante ne nag euh, am nañu ko sunu diggante ak sunu ay autorités universitaires ak yeneen partenaires yi maa ngi koy rafetlu bu baax a baax.

Euh, bokk na ci euh, États-Unis euh, France ak Maroc ndax nag kenn ku nekk si ñoom jox na école bi officier boo xam ne dafay bokk ci ñi tàggat stagiaires yi. institution de notre pays.